sheytaani rajim ñu fas yéene tàmbali asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu may nuyu mbokk àddina di nuyu mbokk Sénégal di nuyu kulli koo xam ne yaa ngi seetaan site bi amaa ñu koy rafetlu te di rafetlu seen déglu di rafetlu seeni commentaire ñuy nuyu nag àddina di nuyu nag suñuy mbokk yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu ñaan ak wàllu seet ñuy tàllal ñëpp suñuy loxo ndax ay ndaw lañu rek di door a door ndax dañuy yëngu ci wàllu faj di yëngu ci wàllu seet te bañ ci commencé nag yàggul am nañ ay xalifa général nag ñu nuyu ñoom ñëpp koo xam ne kulli koo xam ne yaa ngi yëngu ci wàllu ñaan yor sa kurus yaa xam foo mën di toggee yaa xam foo mën di bokkee ñu ngi lay nuyu te di lay ziar te di lay màggal di nuyu ñëpp di nuyu di nuyu ñi nga xamante ne dañuy bàyyi xel ak ñi nga xam dañoo nekk ci suñuy ginnaaw di nuyu suñuy kilifa ndax ama fi ñu dooree am nañ ay kilifa am nañu ginnaaw am na ñoo xam ne ñoo ñu ba ñu yegg si fi ñu yegg si yàgg nañ nag di yëngu ci wàllu ñaan ñu yàgg di yëngu ci wàllu seet ñu yàgg di yëngu nag ci kii mais dañoo toog si suñu rukk rek comme ay ndaw lañu rek tey door door macha allah ndax wàllu seet bi façon bu façon seet bu nee dama koy seetee dinaay seet ci kurus dinaay seet ci ndox dinaay seet ci nen dinaay seet ci bale dinaay seet ci pettaaw di seet ci xottu gerte di seet ci alxuraanu yàlla ji ndax wàllu seet daf ma dikkal lu muy dikkal depuis 2011 mais damaa toogoon doon nëbbatu mais rab moo nekk loo xamante ne mun kenn mënu ko nëbb ndax boo koy jéem a nëbb sax moom du nëbb boppam da lay wan boppam day manifesté wu ci yow di lay wan di lay wan moom mooy kan man nag Mariama Sy ban euh, xayma faj lay waaw Mariama Sy soxna Mariama Sy sax lañ may daal di woowee li may faj bari na ndax dinaay faj hémorroïde dinaay faj góor gu tële dinaay faj jigéen ju mënta am doom dinaay faj itam fibrome dinaay faj itam jigéen joo xam ne dafa am rab te mënul sëy ndax fi mu toll nii booy xool rab moom ak ñun dañoo dëkk. rab ak ñun moom dañoo dëkk ndax rab moom booy xool koo gis rek daanaka bu dee 100 pour cent la 99 pour cent yépp am nañu rab. Mariama Sy dina yëngu ci wàllu jebet dama ciy faj yàlla may na ma ci tension dama koy faj damay faj koo xam ne am na méttitu bopp bu tar ak méttitu biir ak ay tànk yu métti di ruux ay bët yu lëndëm yépp Mariama Sy da koy faj xeetu faj yi may faj faj yooyu la mais ci wàllu set dinaay seet ci xottu gerte dinaay seet ci kurus dinaay seet ci alxuraan dinay seet ci ndox bu dee dama la xool ci wàllum pertaaw gisuma la dinaa la xool ci wàllum gerte façon seeti nii bari na bu ma la xoolee ci wàllum gerte ba gisuma la ma xool ci wàllum ndox ndax am na ñoo xam ne seeni biddéew dafa foor du ñëpp ngay mën a gisandoo ndax itam ñun dañoo am ay rab te dañuy xool dañuy saytu dañuy gëstu say mbir comme maanaam boo demee hôpital dinañ la diagnostiqué dinañ la defal analyse bilan bilan général lañ la defal ñun tam noonu la ñuy saytoo tey yàlla def na ne képp ku ñu faj yàlla daf ñuy defal bala ngay mat juróom fan yàlla may ñu ci ndam Mariama nag li muy yëngu bari na te lu ma mënul it duma ko wax di ji am ñuy sant yàlla ci loolu xeetu faj yooyu da lay faj. d'accord jigéen euh, euh, waaw jigéen joo xamante ni dafa bëgg borom kër te mënoo ko am boo ñëwee ma daal di lay faj ci kàttanu suñu borom ndax amaa am na ñoo xam ne dañ leen di dëj am na ñoo xam ne dañ leen di liggéey am na ñoo xam ne mbirum rab yi day feeñ ci ñoom moo tax képp koo xam ne bëgg na borom kër bés boo ñëwee jàkkaarlu man sa aajo faju te man saa yu képp koo xam ne sa aajo nammut a faju yàlla boo gisanteeg soxna Mariama si man loolu laay ñaan suñu borom képp koo xam ne yàlla wan na ma la ba ma gis ta jàppal ne sa ajo daji faju naam. soxna Mariama si ñaar am la maa ngi ci liggéey bi mais damaa toogoon sama rukk musuma ko fésal waaye am na ay jaar-jaar ndax am na ay rajo yoo xam ne jaar naa fa doon fa liggéey doon fa yëngu ci wàllu seet naka ñi ma xamul bariwul di ci amaa ñi ma xam nag bari nañ noonu waaye ñi ma xamul it néew nañu torop ma ci sant yàlla nag te képp ku ñëw rek bu ma la seetalee digal la say sarax boo ko defee am ci ndam ci kàttan suñu borom. maanaam lépp nga commencé euh, bi ñëwee. waaw waaw ma duggee. ko wala dafa nekk loo doon xamante ni euh, foo ko jëlee tax Mariama soxna Mariama Sy euh, choisir li nga seet ak fekk. waaw Ama man defuma ko woon dama ci doon foofu. di ciy fo ndax sama maam yàlla da ko mayoon xam-xam lool ndax samay maam pël lañu mbooro lañu dëkkee côté mbooro képp ku xam pël xam ne pël mbirum sunguf ak mbirum reen moom bàyyi ko ci mbirum pël sama maam yàlla da ko mayoon xam-xam tarkal la mais ko woon métier euh, sama yaay daan na ci ay pettaaw ma toog ci wetam doon foog ne yi lu exigé wul la ndaxte lu exigé la ama ba yàlla defee 2011 ma mel ne am lu ma dugg may feebar ñu yóbbu ma fu sama yaay rayal na ma xar rayal na ma nag ba rayal ma bëy lu ne def nañ ko ci man dem naa fi Mali faju dem naa fi mu Mauritanie faju dem naa fi ba Gambie faju ci kàttanu suñu borom te ñi may déglu te xam maa kan mooy soxna Mariama xam nañ xel na li may wax ju wér la bi yàlla defee ma jaar foofu yëpp rab na ma déedéet li lay faj man mii maa lay faj ma ne ko ci nan nga may faje mu ne ma dama la li ma la jox danga koy jël nga jëfandikoo ko ma wan la preuve bu leer nañ looloo ma dugal ci faj ama ndax depuis 2011 dama daan toog fi di seet di koy foowantoog samay morom rab xamal ma ne kenn du ko fowee ndax ama rab bés boo ko fowee bés bu la fowee rek di nga yenu say daal déppatiku daal di daw dem lii moom ma dugal ci mbirum faj. ma doon ko page YouTube gis la fa soxna Mariama Sy am moom dafa feebaroon dëkk ci bitim réew Mariama Sy moo ko faj loolu moom ko waaw loolu lu am la te moom rek laa faj ci wàllu bitim réew ndax bari naa ay émigré yoo xam ne ñu ngi foofu amaa ndax dëkk bee toj te moodu moodu yi dañoo sonn jaaxle jàq te saay su ne dañuy bëgg ku leen di dimbali ndax man seet en distance sax moom moo ma gënal ndax boo tolloo fa nga toll man soxna Mariama nga yittewoo ma dinaa la seetal dinaa la digal ay sarax foo mën di toll yaa xam bés boo ko defee gis ci preuve gis ci tan waa jooju ngay wax am na ci ay téeméeri morom ndax am na ñoo xam ne ñu ngi bitim réew am nañu wàllu feebar wàllu façon jàngoro bu ne tam soxna Mariama jàppale na leen ba seen aajo faju ma ci sant yàlla nag ndax lépp mbirum yàlla la est ce que mën nga seet à distance ku nekk bitim réew wala ku nekk Gàmbi ku nekk fu nekk est ce que mën na la woote sa numéro téléphone teg la ko loolu dama ciy yëngu amaa bu baax a baax muy dëggalaat sama wax rek ndax nee naa wax waxaat du bari wax dangay dëggal say wax Mariama si foo mën di toll yaa xam bu la neexee nga toll ba Màkka Koulibantang bu la neexee nga toog États-Unis bu la neexee toog ba fu la neex boo ma woowee en distance ma seetal da wax la preuve lu ma la wax dara du ci leen doo ci weddi dara te lépp lu ma la wax boo boo ko defee dinga nga gis firnde ci kàttan suñu borom ma wan la mbir nag wan la dëgg ndax matikaal dafa am taman damay yëngu ci wàllu matikaal foo mën di toll rek su ma la digtalee samay sarax rek danga ciy gis preuve ma ci sant yàlla itam ndax lépp yàlla mënuma dara yàlla rek a may jàppale moom rek may poussé moom jal jalaaloo ndax man lii musuma ci musu woon nekk sama métier dama yëngu ci wàllu ñaw rab feeñu ma seet feeñu ma daal di dikkee nii ci man moo tax may yëngu ci wàllu seet lu ma waaye laaj nag ci mbirum seet dama ci sawar pour tontu la ndax mooy sama métier d' accord :fra euh, alxuraan bi da koy jëfandikoo wala si seet bi kese nga su ak sunguf ak reen wala yëpp ngay boole alxuraan bi dama ciy jëfandikoo te dama ciy seet bu ma lay seetal say juróom-ñaari baaraam yi lay soxla nga teg ko ci bi ma daal di rëdd say baaraam daal di ciy gis matikaal man soxna Mariama si damay seet ci alxuraan ku ko weddi mu ngi preuve baa ngi nii lay seetee ci alxuraan te dama ciy yëngu te lépp lu ma la ciy wax rek da koy gis alxuraan baa ngi te alxuraan jànguma ko daanaka soriwu ma ci mais yàlla daf ma koy wan ma di ciy feeñu ama man samay bagage su ma tëddee guddi su ma la waree faj dama koy xam su ma tëddee guddi yàlla day def lépp loo xamante ne war naa la ko faj day ñëw sama kanam doonul loo xam ne sunguf bu may jëndi reen bu may jëndi amul dara ma jëndi samay bagage ba ci alxuraanu yàlla ji yàlla daf ma cee may wàllu baatin léegi euh, bëggoon naa xam Mariama Sy euh, ki nga xamante ni tey dafa euh, nekk waaw loolu rab da koy faral di def góor goo xamante ne dañ koo yàq ndax am na ñoo xam ne màndawuñu dañuy dem ci ay jabaru jàmbur ñu def leen ko ñu jaare fa tëlle yooyu yëpp yàlla suñu borom may nañ ci si kàttanu suñu borom ndax ñun lépp lu ñuy wax kalaamatu laa ilaaha illallaah lañ koy waxee ndax ñun yàlla lañ yaakaar moom la wóolu mais góor goo xam ne dafa tëlle mën naa ci dara man Mariama Si te boo ñëwee ma faj la ko ci juróom-ñaari fan ci kàttanu suñu borom waaw puusal ma toog bi moom foo dem am na fa mais amaa dama naan lu sama sang ba doon wax sëñ Babacar si rabbi tàllaahu anhu anhu ndax nee na ku gëmul xarfaa xuuf fuuf ne la mu ne la fuuf yóbbu kon nag nit ñi damay bëgg ñu teel a jóg seen bopp bare loolu di am mais am na ñoo xam dañuy sàggan gëmuñu wàllu mystique gëmuñu wàllu baatin waaye lu exige la ndax ñun yëngu ci wàllu rab xam nañ ne loolu lu am la ndax am na ñoo xam ne dangay toog nekk ci place bu baax ñu randal la puus la bëgg toogee sa place loolu am na di amaa moo tax képp koo xamante ne daal loolu yittewoo na la mbala képp koo xam ne dangay sàkku place pour wàllu liggéey bés boo amul liggéey boo ñëwee ñu sangat la nga am liggéey ñu wan la suñu bopp wan la preuve d'accord euh, bëgg naa tamit ñi nga xamante examen wala wàllu concours lépp daal waaw wàllu concours képp koo xam ne bëgg nga ko booy ñëw indil ma liitaru lem ak wàllu examen ndax itam euh, booy yëngu booy wut ci wàllu examen yàlla may nañu ci trop carte mariage nga may indil képp koo xam ne da bëgg wàllu examen da nga may indil carte mariage. koo xam ne da nga yëngu ci da nga bëgg ci wàllu concours indil ma liitaru lem boo ñëwee ci kàttanu suñu borom ak li ñu yàlla may ñu wan la matigal wan la dëgg mbala képp koo xam ne day xëccu place ñëwal bés boo ñëwee Mariama Sy dina la jàppale dina la dimbali ba di am place mën a soutenir sa bopp jàppale sa bopp. d'accord bu ko daa tamit euh, ñëw si li nga xamante moo nekk jafe-jafe yi euh, ay problème trop Sénégal bëri nga xamante ni moo nekk wàllum sëy euh, koo xamante jigéen la am problème ak jëkkëram bu ko xëcc loo xamante jëkkëram jege ko ndax si saafara. waaw amaa loolu am na saafara bu wér a wér. ndaxte da nga ne Sénégal bari na ay jafe-jafe jafe-jafe sëy yi nag li koy indi moom mooy ñi nga xamante ne sëy bu ñu bàyyi woon nit ak jëkkëram rek ñu ànd yàlla dina ci def ndam mais dañ la dul bàyyi sa jëkkër ndax da ngay gis koo xam ne day bëgg sa jëkkër jaral na ko mu jóg ci wàllu baatin mbala mu jóg ci wàllu saayir moo tax képp koo xam ne am nga sa jëkkër araamul war nga koo mën a noppal sa bopp mu bëgg la ngeen jàppalante te yàllay tax sëy te yàllay tax ndax sëy moo ko santaane képp koo xam ne nekk nga ci sëy sa sëy dëng boo ñëwee man ma jubbanti la sa sëy man soxna Mariama si loo xam si Baye waaw Bayre Ndiaye am na ndax belwel ngeen laa koy defee ak sanqal sànqal bi ñuy jaay ci laay defee Bayre Bayre bu mu mën di doon ci laa koy defee ak belwel ngeen moom laay boole def si samay jat ndax jat moom suñu yëfa ñun pël. ñun pël wàllu jàpp suñuy mbir la bés boo ñëwee bayre boo mën di bëgg man soxna Mariama si boo ñëwee ma jàppale la si ndax am ama am na ñoo xam dañu doon artiste amuñu bayre amuñu xorom yal nañ si yàlla musal nag ndax nit loo yëngu rek war na ànd ak xorom war nga safal sa yaram ba mu saf war nga koo neexal ba mu neex yaa xam bayre njaay yaa xam nga ibbi sa place gisoo ca nit ndax di nga gis koo xam ne day ibbi place am du yaa xam ne da yëngu ci wàllu musique booy ñëw bu dee ku yëngu ci wàllu musique lii nga may indil ñetti doomu nen nga indi ko ma daal di la ci defal bayre neexal sa baat neexal say mbir sa lépp yëngatu waaw Sénégal riir ci kàttanu suñu borom képp koo xam ne nag mbirum bayre njaay indil ma sànqal xorom ma boole ko sama bël wéngél boole ko samay mbir daal di lay jàppale nga daal di am bayre d'accord euh, soxna Mariama Sy euh, ma ñëw sama dernier virage ak yow mhm. jafe-jafe yi bëri na si Sénégal histoire yi bëri na Sénégal li ko waral mooy ñu dëlëm li nga xamante ni moo nekk élection présidentielle te xam naa ne heure bu élection ñëwee rek ñëpp dañu daw seeti Mariama Sy te lépp loo si wax gis nañ ne kenn du ko dindi bii nag bëgg naa nga wax ma élection yi dana am si ndox am nga andil ma tamit kan mooy nekk président ëllëg. waaw Ama dañ naan wax waxaat du bari wax rek comme ni ma koy waxee ndaxte élection 2012 yi kilifa yu bari seet si nañ ma ñu bari daal dinañ ñëw fi te la ma leen waxoon gis nañ ko yàlla may na ma loolu ba ci élection mairie yi passé ba ma leen waxee commune de Biscuiterie bi nga xam ne ci laa yeewoo Doudou Issa Niasse a koy gagné ñépp dañ ko weddi woon te loolu la yàlla dogal ndax nee naa ku nangu yàlla dogal doo sonn kàttanu suñu borom man Mariama si xam naa kiy gagné élection yi di ñëw. te bu ngeen ko élection yi dina tàng jër ndax mënta seet. ndax élection yi gis naa ci ay sarax yu bari. mais ki koy gagné muy njiitu réew mi Macky Sall. ah mooy gagné. mooy yi man soxna Mariama si ku ko weddi. waaw ku ko weddi na dugg suñu paas rek. daal di ñu ciy gis ndax fi ma ko teg fu leer la wa wan nañ ma ko juróom-ñaari yoon. Macky Sall nag nee naa dina gagné premier tour ndax man duma politique. man du ma yëngu ci wàllu politique man li ma xam mooy seet laa xam ak sama wàllu liggéey ak alxuraanu yàlla ju sell ji waaye Macky Sall kuy gagné premier tour la mais doomam na def attention doomam bi ñu ñaan Amadou Sall na def attention ndaxte liñ bëgg def ci doomam lañ ko bëgg a jaarale am na ay sarax yoo xamante ni bés bu ñu ma woowee man soxlawu ma Macky Sall soxlawu ma Marème fay sàll waaye képp koo xamante ni yaa ngi ci partem li may wax nga bëgg cee xam dara ci Amadou Sall moom boo ma woowee wax la lan mooy saraxam pour mu fànk li nga xam ne moo war a ñëw ci moom ndaxte bu ñu bëggee jaar ci baay ca doom lañ koy bu ñu bëggee jot baay mënuñoo jot baay ca doomam lañ koy jaar mais ki nga xam ne moom mooy Amadou Sall xawma ko mosumaa gis koy Amadou Sall lépp loo xam ne dama koy wax ci sama wàllu gisaane bi laa koy waxee waaye Amadou Sall na jóg ci boppam ba pare am na ay sarax yoo xamante ne gis naa ko ci moom ku ma mën di woo dinaa la wax lan mooy sarax man soxna Mariama Sy waaw man sama diwaan maa ngi dëkk fii ci cité Bissab ndax cité Bissab boo ko waxee ñu bari dina leen xaw a jaaxal mais man si jaaxaluma ndax boo ñëwee ba station Kasor rek boo ma woowee sama numéro 77 060 43 10 boo ci woowee soxna Mariama si rek dina la daal di indiqué nga daal di ñëw mbala nga wooma ci 77 652 85 04 ku ma woo ci numéro yi ci kàttanu suñu borom di ma ci kii mbala nga xool ma si suñu TV. di ma gis waaw Mariama si euh, cabinet bi ban soxna Mariama moom cabinet bi mu ibbi ibbi 9h laay commencé ba 18h ndax fu 18h jotee damay arrêté ndax samay ticket du ma romb 15 ticket jël. ci sama li nga xam ne dama koy yëngu boo ñëwee di nga gis sama sant te boo ñëwee mu daggal la ticket nga daal topp ci rang bi 18h daal lay arrêté waaye duma liggéey par vendredi ndax vendredi damay dem géej dem tuuri dem def samay bagages. kon Mariama Sy looy tàggoo waaw li may tàggoo damay sant yàlla dolli ci sant di santati suñu borom bi su sant àddina wërngël képp di nuyu sant waa Sénégal foo doomu Sénégal nekk ci àddina rek soxna Mariama mu ngi lay nuyu. di lay ziar te di lay jox sa wàccuwaay suñu TV nag damay rafetlu mu nekk site boo xam ne site bu bees ta ñu ibbi ko ñu gis ne macha allah àdduna yëpp a ngi koy seetaan dunia yëpp a koy seetaan képp koo xam ne yaa ngi laam laamee mbirum soxna Mariama tàppel suñu TV rek ci kàttanu suñu borom di nga fa gis soxna Mariama te lépp loo xam ne dama koy wax te nga am loo ciy wetti rek commentaire ndax man soxna Mariama dawuma tiituma làquwuma ndax lépp loo xamante ni dama ko wax fii lu leer la loo xam ne lu ma yàlla may la may sant yàlla di sant nag àddina wërngal képp di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa